di leen baal àq ti leen baalu àq di leen euh, dalal fii ci émission Séddoo ak askan wi fii ci euh, kër Cheikh Omar Diop euh, di am contentement bu baax ci dajewaat ak yéen ci beneen numéro ci Séddoo ak askan wi li ñu war a waxtaanee moom mooy internet ak ndaw ñi wala sax ak avenir u Sénégal mu am ndénkaan yu am solo yi nga xamante ni war nga koo mën a jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa réew mi surtout ndaw ñi tey dañu gis ni euh, ndaw ñi ñu ci ëpp wala sax ñëpp tey dañoo daw jëmali internet te euh, nekk na jumtuwaay bu nga xamante ni bu doy waar la te yow boo doon définir situation boobu noonu ban définition exacte nga koy jox. alhamdulilah définition bi ma koy jox. mooy man sama jàngat ci internet daf ma tiital ci avenir u suba ndax di jàng loo xam ne setantaloo ko di liir loo xam ne këruwuloo ko di liir loo xam ne maîtriser wuloo ko loolu laa gis ci jeunesse bi ci internet internet dafa nekk euh, mbir moo xam ne maanaa àddina mooy dox di indi ay mbiram ba indi internet mu nekk jumtukaay boo xam ne àddina bi yëpp ñoo koy jëfandikoo jëfandikoo bi ko àddina bi di jëfandikoo tax na mu nekk loo xam ne dafa dem ba yegg ci loxoy sénégalais yi sénégalais yi di ko jëfandikoo euh, ndax ñun lii ñuy def muy émission séddoo ak askan wi suñu askanu réew lañ koy séddool ñeneen mën nañ ci jot waaye nag suñu réew moo tax ñuy wax moo tax bu ñuy wax dañuy waxaale suñu culture réew waxaale suñu idéologie waa réew joxe wala exemple ci suñu ay mag ñu fi nekkoon ci ñu waa réew pas ñuy joxe ay exemple borom xam-xam yoo xam ne ay imam Junayd ay imam Saazili yooyu noonu ak ak imam yeneen yeneen borom xam-xam yu mag yooyu seen te te ñun ñu am suñu ay mag ñoo xam ne seen dimension tolloon na ak ñoom dimension wala ñu raw leen sax donc dañoo am pour jël ci ñoom ay exemple yu doy baal ma euh, seddoo ak askan wi tey dafa ñëw pour waxtaan ak nit ñi ci. internet internet dafa nekk mbir moo xam ne euh, man si sama jàngat ni ma ko gisee nit ñi di ko jëfandikoo yi euh, laaj nañu ci def ci ay jotaay yu bari pour conscientiser jeunesse bi nga xam ne ñu ngi dem vers l' internet ndax avenir u réewu senegal mooy ndaw ñi. dama gis ndaw ñi dañuy consulter internet lu bari. Hmm. ma gis ñoom ci seen bopp ñuy fàtte seen bopp lu bari tam bi ñu waroon a def ci seen bopp. xalaat ko seen avenir def ko ay jàngat ci seeni ay gëstu dañ koy def vers l'internet da gis koo xam ne day xëy suba ba ngoon ay vidéo rek lay seetaan wala nga gis koo xam ne day xëy suba ba ngoon ay commentaire rek lay wër maanaam fu mu dugg rek gis fa benn benn benn benn publication bu ñu dugal mu def fa commentaire fàtte ne moom temps boobu muy jël di ko def ci commentaire yi ak di ko suivre li ñuy actualité internet bi loolu daf ko waroon def ci boppam mun na loolu su ko defoon ci boppam tey euh, xalaat at avenir am xalaat situation bi mu toll moom ci waxtu woowu muy def loolu rek loolu war na ko mën a pousser mu dem vers son avenir ndax nit ki tey heure boo xas perte heure boobu mënatuloo ko dabaatal jamais te nit ki sa avenir suba ak sa te la li nga war a corriger démb ci sa tay la nekk nit ki tayam démbam mu ngi ki tayam subaam mu ki tayam ndax li la naqari démb tey rek nga ko mën a corriger hmm? Hmm. li la li la li nga bëgg a doon suba tey ci nga ko mën a préparer ndax suba bu ñëwee tey rek lay doon hmm. donc kon doomu aadama bi avenir am yépp ci tey la nekk sa tey nag soo ko jëlee dugg ko ci internet di xool ay vidéo yu ñu def euh, euh, bu ñu dégg xam nga defa léegi vidéo yi ci xew léegi mooy dañuy jël benn photo teg ko wala ñu jël benn benn kii bu ndaw texte bu ndaw bind ko ci kanamu vidéo bi teg ko yow boo xoolee liñ bind ci texte bi rek automatiquement rek daf lay attirer pour nga cliquer ci loolu internet mën nañ ko jëfandikoo hmm? waaye nga xam yow muy jëfandikoo internet ana lan nga war a mën a dem dugg ci internet jël ko fa pour sa bopp yow mhm. nga jël ko fa pour lu lay yokk ak li nga xam ne moo lay dimbale ci sa wàllu avenir mhm. mais pas nga toog jël sa temps di di di consulter vidéo yi mhm. di xool li nga xam ne moom lañ bind ci kaw vidéo bi pour nga cliquer pour mën a xool lan moo ca nekk pour nga dugal sa commentaire. Mm-hmm. ok d' accord euh, wax nga léegi ci sa biir yi wax nga ni euh, internet dafa euh, nekk loo xamante ni àdduna mooy dox ba ba indi ko kon donc su ma déggee loolu noonu dafay mel ni lu ndaw ñi mënta bañ a fu ndaw ñi mënta bañ a dugg lañ kon tey bu ñu concentré woo ci seen jëmi bopp fàtte internet bi est ce que kon àdduna du dem bàyyi leen nga yaakaar maanaam du ñu du ñu du ñu du ñu tardé ci seen dund nga yaakaar. waaw euh, loolu mooy li am parce que nit ki su fekkee ne mu ngi mu ngi dugg ci internet di ko consulter te nekk ndaw te ndaw dafa nekk lu sacré suy dugg ci internet bi di ko consulter moom ci boppam war na nekk koo xam ne dañ koo préparer ku ñu préparer la war a nekk ndax nit ki su fekkee ne euh, da nga dem ba mature ba mu mag. ba toll ci yenn âge waxtu woo jógee di dem ci dara war ngaa xam li ngay jóg di dem lan nga ci jëlee lan moo ciy nekk pour yow lan moo ciy nekk perte pour yow lan moo ciy nekk avantage pour yow donc jeunesse bi nga xam ne tey ñu ngi nekk ci internet bi mënul ñu ñàkkaa dem vers linternet kenn mënul ko aaye jeunes bi mais man ce que euh, j'ai proposé mooy mooy nit ki su fekkee ne mu ngi jóg di dem vers l' nag ko soxla taxa dem ci internet soxla maanaam loo xam ne lu lu lu luy yokk activité bi mu nekk la. parce que du internet mooy activité bi. internet benn mbir la moo xam ne soo amee lu la manqué ci li ngay def nga dem vers l' internet pour jël ko fa pour ajouter ko ci li ngay def. mais man li may gis mooy ñoom defuñu dara dañuy dem tout pour l' internet. te loolu mooy li dangereux parce que kii dem ci internet bi moment bi muy dem ci internet bi loolu temps boobu noonu. dafay répercuté wu ci ci avenir am te Sénégal gii ñu nekk Sénégal la boo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel ne am na rupture. am na rupture ci wàllu économie am na rupture ci wàllu éducation am na rupture ci wàllu relation am na rupture wàllu vis-à-vis addina bi ak Sénégal bët bi ñu koy xool léegi. mais nag dañu war a conscientiser jeunesse bi xamal leen ne seen réew bët bi ñu ko doon xool démb ak bu tey bokkatul. dafa am importance ñu wax ko jeunesse bi xamal leen ne yéen dañ leen doon xoolee ñu ñàkk ñuñ xamu ñuñ doon laajte yéen yéenay ñan ana fu Sénégal am loolu dañ na loolu lañ ko war a wax jeunesse bi ñu xam ko dañoo war a wax jeunesse bi ne yéen yéen la Afrique yaakaar parce que li fi xeeñ li fiy xeeñ tubaab yi conscient nañ bu baax ci loolu parce que boo gisee ñu gaaw dem indi seeni ay affaire di ko implanté waat ci réew mi di envoyer seeni ay ay doom ci réew mi di envoyer seeni ay agent ci réew mi c'est parce que Sénégal dafa am rupture léegi vis-à-vis ak Sénégal bu njëkk ba loolu dañ ko war a dañ dañ ci war a conscientiser jeunesse bi ñu xam ne waratuñu toog di seetaan ay film parce que loolu nekkutul pour ñun ñu xam ne waratuñu nekk ñoo xam ne dañuy toog jël lu ma deux heures de temps di ko def ci loo xam ne doo ci jëlee benn résultat ñu xam ne dañu war a informer jeunesse bi dañ leen war a informer discours yi dañ ko war changé changer mooy lan nous on est riche déjà nu nu nous de première producteur producteurs pétrole en Afrique ñu ñu nous sommes des premiers producteurs gaz en Afrique Sénégal mooy réew mi gën a riche Afrique Sénégal tey jégee na ci ndóol Sénégal tey jógee na ci ñàkk mm. Sénégal tey jógee na ci yalwaan Sénégal jógee na ci yaakaar keneen ku dul boppam yooyu la ñu war a def ay discours ci jeunesse bi jeunesse bi gëmaat boppam loolu suñ ko waxee soxlaatul ñuy wax kenn bul dem mbëkk ma soxnaatul ñuy wax kenn demal immigration bul demati dem immigration bi dem dem immigré ji bu boobaa jeune même immigra immigré yi nga xam ne dañuy nekk en euh, l'étranger loolu sax dina leen pousser sax ñoom ñu xam ne léegi dañoo war a dellu vers seen réew parce que discours yooyu lañu soxla tey ci suñu réew suñu réew dafa jóge ci ñàkk suñu réew dafa jugee ci ndóol suñu réew dafa jugee ci réer suñu réew dafa jugee ci ah, ñu koy réeree Sénégal léegi tubaab yaa ngi daw di ñëw Sénégal léegi Afrique ñu ngi koy sóor Sénégal léegi monde entier ñoo koy sóor kon moo tax man ma ne ah, internet bi nga xam ne jeunesse bi hmm. ñu ngi ko ñu ngi jël seen àddina yëpp dem def ko vers l' fàtte seen réew hmm. fàtte seen jeunesse suba fàtte seen responsabilité suba fàtte seen avenir suba loolu moo tax ma leen di alerter pour fàttali leen ne internet bi mu ngi nelaw loo seen xel yi nañ ci bàyyi xel. est-ce que kon tey jàppaloo ni euh, comme ni nga ko waxee léegi nga ni Sénégal dafa am rupture rupture boobu noonu est-ce que tey euh, euh, du maanaam c'est pas urgent yarkat yi ñu ci mel ni yéen wala ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ciy réew mi war a dem vers l'internet ñoom pour mën a yee ndaw ñi pour wax leen ne leen ñoom ñu ngi ci danger mais aussi pour mën leen a alerter ci li nga xamante ni moom nga wax léegi di facteur économique yi nga xamante ni moom moo am ci ci ci réew mi ci Sénégal jaar ci biir internet bi pour yee leen ñoom. waaw loolu dafa am solo parce que boo xoolee léegi discours yi gars yi di def man ci bu weeru koor jotee damay seetaan imaam yi conférence yi di def ay discours yoo xam ne vraiment man su ma ko seetaanee dama daan euh, lii moo tax ñuy xeeb sëriñu daara. comme si que sëriñ daara bokkul ci actualité comme si que sëriñ daara il n'est pas intelligent comme si que sëriñ daara gis-gisam soriwul man loolu vraiment daf may métti parce que sëriñu daara yi actuellement seen discours nekk ci. Euh, euh, ba mu xaree Badar ba mu xaree doy bi parce que actuellement dafa am gan gu ñëw ci ñun boo gisee ñuy def xutba ci juma c'est parce que pour waxtaanee les actualités la les actualités maanaam nit ki li nekk ci sa gox wala sa dëkk su dore xewee booy def xutba ci juma nga taxaw wax ak nit ñi ci loolu. nit ñi xam ne buñ delloo ci seen kër yi waruñoo xeex wala waruñoo lii wala waruñoo laa ñu xam ko léegi liñ war a def comme ay conférence ci conférence yi dañuy bloquer mbedd yi. amuñu ci benn droit teguñu ko fenn parce que Sénégal dafa nekk réew mu ñuy xaar xaar waratuñu nekk ku ñoo xam ne dañu toog di bloquer ay mbedd dépassé nañu loolu ndax ay conférence parce que ñun ñoo war a joxe les bon bon exemple hmm? ñun ñoo ko war a joxe mais da ngay gis koo xam ne dangay gis mbedd dafa sacré mbedd dafa nekk lu am solo ci réew dangay gis nit ki ah nga gis mbedd da ngay gis ku tabax këram kër gu rafet ñu war a fa awale mbedd mais ñaata kër la ñuy ramasser pour tabax bu jaarale fa mbedd tellement mbedd dafa nekk lu sàkk dafa am solo léegi yow nga toog yow benn Bàtt Njaay wala Samba Njaay rek am sa juróom fukki nit yu la yu la déggal nga dajale leen ci benn benn ruq wax fa lu la neex da nga fa wax ba mu jeex sa diine doo ko fa wax nga wax ko fa léegi bloqué mbedd bi bloqué circulation bi oto bu bëgg a jàll wëri yaa ngi tardeel économie réew mi donc Sénégal dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne ñun ñoo ko bokk bu dalee ci suñ kaw dañ koy wax. xam nga xam nga xam nga Cheikh Omar Diop euh, boo waxee loolu dafay mel ni euh, conférence yi yow àndoo ci conférence. tey boo waxee ne ñu ngi bloqué mbedd yi te teguñu ko fenn euh, te nga xamante ni diine lañ fay wax yàlla lañ fay wax dafay mel ni yow da ngaa dàq conférence koon man je suis conférencier man damay def conférence. ah waaw mais ni nga waxee nii moom. est-ce que ñiy def ñiy def loolu wax. conférence am nañ ay milliers yoo xam ne mën nañ ko fa defee. nit ki am nañ mbedd yoo xam ne war waruñu ko bloqué am na ci ay bayaal yu am ci quartier yi war nañ faa def defee conférence man c'est loolu laay wax. nit ñi bañ a def seen bakkan parce que toog toog mën nga dëkk ci benn quartier. sa yow nga dëkk ci euh, euh, yow ngay def conference sa buntu kër ngay génne rek teg sa bâche rek teg say chaise rek commencé def say conférence mais loolu dañ ko war a arrêté parce que Sénégal embouteillage bi fi nekk léegi gis nga boo bloqué benn mbedd dafay répercuté wu ba bu fekkee yaa ngi loolu duñ ci rendre dafay dafay wu ba Dakar Plateau. ndax yow sa bâche bi nga def ci bopp koñ bi fii ci Fadia te xamuñ na Dakar benn benn benn chaîne la parce que yoon yi Sénégal amul prévoir ñu woon ay yoon loolu ci ci ci ci ci ci gouvernement yi njëkk yee la woon musuñu xalaat ne Sénégal dina développé bañ soxla ay ay mbedd foogoon nañ ne ruq yu xat yi ñu am doyoon nañu fekk na prévoir ñu woon suñu avenir tey donc nit ñi dañuy am doo xam ne ci gis-gis vision dafa am ñoo xam ne ay visionnaire lañ su ñuy wax dañ leen war a bàyyi xel déglu leen conférence yi ñuy def ci mbedd mi pendant weeru koor su weeru koor bi jeexee ñu arrêté ko su fekkoon luñ gëm la duñ ko arrêté nañu waxante dëgg su doon luñ gëm la chaque jour chaque jë chaque jour dañ koy def mais pour pourquoi ñu jël la la la le mois de pour pourquoi ñu jël weeru koor bi. rek concentré del seen lépp def ko ci ci ci ay ci ay conférence peut-être parce que weeru koor bi mooy weeru jaamu yàlla ci la jaamu yàlla bi di ëppee wax nga léegi forme bi ci dàq nga forme bi nga ne ni ñu koy defee baaxul après di nga indi solution bi waaye ci fond bi aussi lañ cay wax euh, est-ce dañu war a yem rek commencé nga ko sànq est-ce que war a yem ci discours euh, yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fii la defee xare Badar kii mooy yaayam kii mooy baayam est-ce que foofu la ñu war a yem est-ce que tey waruñu gën a creuser aussi internet bi est que waru ci jouer beneen partition ci ci conférence yi ngay wax nii léegi nit ñi mën nañ def conférence à tout moment tous les jours parce que am nañ jumtukaay am nañ possibilité bi def ko mais c'est pas dajale ay nit rek ci benn barab pour wax ak ñoom maa ngi nii ci sama biir salon di wax ak àddina yëpp maa ngi conférence. ok est-ce que bloqué naa benn mbedd. message bi ma bëgg a jàllale ku ko bëgg a gis dana ko gis. tey munoo dajale 3000 personnes ci sa conférence munoo ko. te man su ma waxee wax bii nii mais mat 5000 personnes dañ koy seetaan. li nga bëgg a wax wax ko nit ñi parce que jamono foofu foofu la toll est-ce xam nga li ma bëgg a expliquer mais dafa am ay intérêt ne ci biir da nga dajale force nga dajale nit ñi pour ñu indi la ñetti enveloppe ñeenti enveloppe juróomi enveloppe nga laa wax nañ ko arrêté loolu day tardeel Sénégal day tax sa idéologie yi xalaat yi ñu waroon a am pour avancer day day bloqué wu que koo gis mu def en conférence sa xarit bu gisee nga def conférence automatiquement xelam du xalaat lu dul def conférence comme yow orienté nga ko feneen foo xam ne du intérêt réew mi man loolu laay wax conférence yu loolu moom waral mu bari parce que dañuy koy jox dañuy jox imp dañuy jox dara loo xam ne amul njariñ boobu c'est pas parce que nit ñi dañuy waxtaan ci yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam amul njariñ déedéet waxuma loolu de. c'est parce que ñëpp di def conférence laa wax ne loolu moment weeru koor lëmm économie réew mi day arrêté ay conférence loolu laay wax mais nit ki mën nga toog sa saal nga wax sa conférence nga sànni ko ci internet bi nit ñi seetaan ko 3000 personnes bu fekkee li ngay wax pour nit ñi la mais bu fekkee na nga woo nit ñi pour ya ñu tàggal la say maam ak say baay jox la ay enveloppe mais là su neexee mën nga arrêté. mën nga toog ci mbedd mi nga def ko mais bul bloqué yoon yi loolu laay expliqué parce que Sénégal laay wax ñu xam li tardeel réew mi. tamit li nga wax noonu ci wàllu forme bi wala fond bi que ne nit ñi waruñu def discours yi gars yi di def ci conférence yi wax nañ ko arrêté soxlaatuñu discours yooyu li ñu soxla mooy discours yi yee ñu doom yi discours yoo xam ne danañ ñu mën a xamal suñu waree dem ci supermarché bii ndax pour diw la. wala suñu waree dem ci supermarché bii ndax pour diw la ñu doomi Sénégal yi xàmmee suñ bëggee dem ci supermarché ñu mën a def choix xam ban mooy jëm ci poosu Sénégal ak buy jëm ci poosu jàmbur loolu dañ leen cee war a defal ay waxtaan ñu xam ko ñu defal leen waxtaan ñu xam ne bu tubaab jógee ci réew ma dugg ci réew mi di dox ci mbedd yi ñu xam ban bët la ñuy xool tubaab bii lan lay def ci suñ biir ñu xam yooyu laa bëgg yee ñu yee ci nit ñi man loolu foofu laay waxee parce que ñu ñu ngi xeeb loo xam ne di ñàkkal fayda loo xam ne war nañ ci def njàngat parce que pétrole bii du caaxaan bu réew yu tàkk yépp pétrole la leen tàkkal ak gaz Sénégal pour ñu bañ mu tàkk il faut ñu yee doomi Sénégal yi sinon danañ xëy fii affaire bi na këpp ci suñ kaw duñ xam fuñ koy jooyee loolu lay wax te tamit suñ doom yi nañ leen jàngal nañ di communiquer ak ñoom internet bi bu ko sa doom di seetaan da ngay toog ci wetam laaj ko looy seetaan bu ci gis boo ko gisee muy seetaan loo xam ne dafay nelawaloo xelam nga ne ko lii amul solo lii pour ñoom diw la yow li nga war a seetaan ci internet lii la moom mu xàmmee su duggee ci internet dafa war a gëstu leçon bi mu war a jàng ci biir internet bu ko defee su fa gisee leneen loo xam ne waru koo seetaan mu mën a am possibilité mu mën a am maturité pour cliquer romb ko bañ koo laal loolu moom laay expliquer pour nit ñi am mature ci wàllu internet ndax internet dafa nekk loo xam ne actuellement moo moo moo moo moo moo contrôler système bi nga xam ne mooy système mondial moo ko contrôler léegi ñëpp ñu ngi dem vers l'internet mm-hmm. mais nag kuy dem ci dara war ngaa xam loo boo demee ban position nga ca war a am wala ban ba bonne position nga ca war a taxawee loolu moo tax may expliquer nii. dugg mujj gi rek euh, Cheikh Omar mooy ñu def synthèse bi synthèse bi mooy euh, xale yi maanaam ndawi réew mi euh, waruñu mën a bañ a dugg ci internet bi mais ban position lañ koy lañ lañ lañ fay lañ fay am bu ñu fa duggee waaye nan la ñuy def ba bu ñu demee ca internet ba récupérer li nga xamante ni moom mooy seen njëriñ ngir ñu mën ko jëriñoo ngir seen ëllëgu réew ak seen ëllëg waaye conférencier yi mooy mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a yee ndaw ñi waruñu yem kese it ci ci mbedd yi wala di wax ne yonent fii la xare fii la xare mais ñu wax ñu lan mooy euh, euh, taxawaayu ndaw ci avenir u réewam donc synthèse boobu laa bëgg nga ñëw defal ñu ko doogee tàggatoo. waaw loolu nga wax euh, daanaka synthèse bi def nga ko sax yow déjà ndax wax nga ko li may wax yëpp da nga ko résumé ci sa kii bii nii même pas deux minutes nga ko nga ko résumé donc man loolu laa bëgg expliquer. donc damay def njàngat ci lu nekk damay bañ Sénégal tardé benn une minute parce que man dama nekk koo xam ne dama fonk temps parce que nit ki bu ko bu jëlee temps passé ko ci benn kii rek dafa am lu bari loo xam ne daf ko daf koy rëcc daf koy rëcc. jeunesse bi li ma leen di conseillé ci wàllu internet bu ñuy dem ci internet na leen fa soxla dugal mais pas ñàkk naa lu ma def rek xaaral ma dem ci internet ma ma ma ma passé sama temps temps boobu ngay def ci dem di consulter foofu ay commentaires yu amul njariñ temps boobu laa wax ne def ko ci sa xalaatu avenir bopp yow loolu laa wax léegi nag internet bi duñ ko ñàkk jëfandikoo mais nañ koy soxla di ko def comme man tey ma jël exemple ci man maa ngi defar sama vidéo nii waxtaan ak ak jeunesse bi jël ko dugal ko pour dugal ko internet moo ma fay tax a dem ma dem dugal ko internet pour mën a parce que xam naa ne soxla naa ko pour nit ñi seetaan ko soo so soo ñëwee nag nga liir vidéo bi nga xam ne kii kat lu li mu li mu wax ah, nangam la nga nga cliquer fekk fa leneen ah lu bokkul ak li mu def ci ci kanam automatiquement da nga war a couper te tamit kooku nga nga nga defal ko pause close ko parce xam ne kii dafay naxaate parce que gëmul boppam parce que su gëmoon boppam la muy wax lay def kooku da nga ko war a ignorer waratuloo ko setaan su waree moom su gisee nit ñi di ko ignorer su yàggee moom dina wax nit ñi li muy def. xam nga li ma la su ko defee dootuñ naxati suñu population bi di leen wax lu amut di leen wan lu amut muy ci muy joué ci suñu psychologie ba dem ba nga xam ne yow nit ki dana dem ba nga xam ne su amee vidéo bu mu war a dugal ci internet sax tant que deful loolu pour moom vidéo bi kenn du ko seetaan loolu dafay tax nit ñuy tàmm fen dafay yombal nit ñi fen parce que da yaa ngi wax fen loolu nit ñi ci sa ci sa sa page internet parce que li nga teg ci kanam ak li nga la nekk ci vidéo ba jot jotewuñu dara loolu laay expliquer donc nit ki su demee bay wax wala mu dem bay cliquer wala mu dem bay passé temps ci dara na nekk loo xam ne soxlaam la bu mu war a mën a jël pour mën ko dolli ci li nga xam ne mooy li muy tabaxal li avenir am bi muy tabax. loolu moo tax ma ne nañ xool baax nañuy jëfandikoo internet. internet baax na parce que ba soxla information immédiate da nga koy am direct soo soxlaa direct def direct danga koy am soo soxla Amérique léegi danga koy am mais soxla la da nekk loo xam ne da nga koy soxla pour dem ci mais pas nga ci te amuloo ci benn soxla. loolu laa expliqué beneen bi ci mooy wàllu euh, euh, conférence yi ma wax. dama wax pour ñoom ñu bàyyi xel ci ne actuellement débat bi dafa changé maanaa système bi dafa changé léegi nit ñi am na leneen lu ñuy xaar ci ñun lu dul toog fii di wax lu paase. léegi am nañ lu nekk ci suñ kanam xamuñu nuñ koy jàngatee war nañu yëngatu ba état bi xam na ñu ngi bàyyi xel ci moom parce que li nga xam ne mooy économie réew bi dafa am ay ay quelques yu ñu ko dénk. ñooñu war nañ leen a wan ne ñu ngi leen di topp ba pas paa pas yaa may dégg ba xam ndax suñu avenir ak suñu économie fan lañ koy orienté jëmale population man lu lay wax loolu genre alerte la pour wan nit ñi ne leen nañ def attention parce que avenir bi dafa am ci léegi ci lu mu sukkandiku te contexte yi changé na nekkatul comme na meloon dem ca tool yi bay léegi su mën nañoo am fii ak quelque su la neexee sax doo bay doo def dara après da ngay mais naka lañ koy préparer parce que li ñu xam ci affaire pétrole bi te dégg ko te yaakaar ko ne mooy li am loolu su fekkee moo ñëw ci réew mii ni kum neex nga bañ a dem ci dara te da ngay risque mais nag la ñuy def ba loolu mën a nekk ndax am na lu fi xewoon am na yeneen ay ressources suñu amoon mais kenn sentir ko ci ci dara lu ko waraloon mooy préparer ñu ko woon waxuñ ñu ci woon defuñu ci woon benn jànkat mm-hmm. moo waral bu bañ ko orienté jëmale ko ci yeneen i ay yeneen i ay intérêt ñu ko contrôler parce que dañoo ñoo nelawloo loolu laay wax sa nañ def ay conférence pour yee suñu su suba man loolu laay wax loolu laay loolu laay wax